foo mën a dëkk ci biir réew mi lum sori sori nga dellu fa te dundal màggal gi ci sa biir këru bopp te nee na nga dëppale ko ak ni ko Serigne Mountakha digle mbokki taalibe yi nga xam ni jot nañoo ñëw ci biir dëkk bi Madinatu Salaam ngir màggal si nee na digal na mbokki taalibe yooyu yi nañu daal di dem jël seenub cër ci màggal gi bu ñu noppee ñu takkaat seeni bagage fépp fu nu mën a dëkk ci réew mi nee na nañu fa dellu dugg seeni kër te màggal fa màggal gi te dëppale ko itam ak ni ko sëriñ bi diglee nee na moom ci boppam moom soxna Aida nee na màggal gi mi ngi ko fas ne dundale biir këru boppam ànd koog njabootug boppam gisus ci moom te nee na dëppale ko it ak ni ko sëriñ bi digle nee na kon ndigal loolu mu fas ne defe noonu mu koy defee nee na digal na ko mbooleem cant ak yi kenn ku ci nekk foo mën a dëkk moo xam mbuur la moo xam ndakaaru la moo xam cees la moo xam tàmba la fu mu mën a doon ci biir réew mi ak képp ku fa mën a nekk di ab cantaakoon nga ñëw ci biir dëkk bi nga nga jël sab cër ci màggal gi soo noppee nee na nga daal di delluwaat fa nga dëkk nag nee na nag nga daal di fay dundale màggal gi te dëppale koog ni ko sëriñ bi diglee wax jaa ngi noonu kon na ñëpp ñëw jël seeni cër su noppee fu ay mën a dëkk ci biir réew mi moo xam Tamba la moo xam Ziguinchor la moo xam Thiès la moo xam Dakaaru la moo xam Mbuur la foo mën a ne nga ñëw jël sa cër soo noppee nga delluwaat sa sa kër ga nga dëkk sa dëkku bopp nee na nga dundal fa màggal gi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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام